Chers amis, nous voilà au milieu de la, forêt coldoise, euh, en plein milieu des rizières de la Nampé. Nous avons été contraints à ce détour pour se rendre à Pelengara. Depuis qu'on a quitté Kolda, c'est tout un escadron de la gendarmerie doublé de, de, effectives effectifs de la police qui nous ont suivis partout, dans les moindres coins et recoins des plus petits villages pour euh, euh, arroser tout le monde de grenades lacrymogènes. Je présente mes excuses à ces paisibles villageois qui n'ont commis d'autres crimes que d'être sortis pour accueillir Ousmane Sonko. Et depuis qu'on est arrivé à Diaoubé, c'est eh, allé un cran au-dessus, puisqu'ils ont même barré la route et ça a déclenché des affrontements avec les jeunes. nous avons été contraints de prendre ce détour euh, à travers un moyen de, de transport différent de ce que vous avez l'habitude de voir avec nous, notamment notre, modeste véhicule, et de passer à travers champs pour nous rendre à euh, euh, Velengara, parce que dans tous les cas, s'il peut à Dieu, j'entrerai aujourd'hui à Velengara au nom de la liberté, puisqu'il s'agit de la caravane de la liberté. Au nom de cette liberté, nous considérons que Macky Sall ne doit pas empêcher les Sénégalais d'aller et de venir, de circuler et d'aller à la rencontre de leurs compatriotes. mbokk yi ñu ngi fii ci àllu Kolda bi ngeen ko gisee fii mooy li ngeen di dégg nag ma defal leen tuuti publicité ci Kolda ñu bëgg def tourisme dina ngi dégg toujours ñuy wax Anambé nga xam ne liñ fiy béyee ci ceeb moom macha allah bëri na lool moo nekk nii lii lépp ay toolu ceeb la gis ngeen ne béykat yi ñoom euh, wëlbati nañ suuf si ba pare di xaar mu taw rek ñu sànni ceeb euh, li tax nag ñu jaaree fii mooy gis ngeen ni suuf ba léegi ñu jógee Kolda ba danaka gendarmerie escadron gendarmerie moñu ñu ak ay policiers yu nek ci ay car ak pick-up yu bari dëkk dëkkaan bu ñu taxaw rek wa dëkk bi genn ñu sànni len ay grenades yu dul jeex ñuy masawu suñu mbokk sénégalais yi nga xamni tay jamm lañu mësa xam ak dal ndax ku xam dekk dekk kaw gi xamni xamuñu yoyu tay ñu gazé len di len ay grenades ci lo xamni jaru ko won waye gis ngeen biñu exé jawé ba légui nak dafa yokku lañu ñu ci ay alkaati mardi taali ñu dem ba nag di baari yoon yi mu mel ni nag ñoom Ousmane Sonko dem Vélingara continuer Tamba la ñuy bañ waaye li gën a yéeme mooy li mu yëg ci ay xibaar Ousmane Sonko dugg biir dugg si biir Ndakaaru moo leen tere nelaw bu soobee yàlla nag dañ dem Ndakaaru incha allah euh, lii moo taxoon nag ñu jaaree ko nii bu ngeen xoolee sax dañoo bàyyi suñu staff bi yëpp ñu ngi leen téye fële ci àll bi obligé jël ab oto boo xam ne ndax dañoo jàpp ni ak nu mu munti demee tey bu soobee yàlla dinañ dugg Vélingara parce que Macky Sall mënuñoo war a tere ñuy dem di dikk karawaan bi dañ ko tuddee woon karawaanu liberté mooy karawaanu àq ak yelleef moom sa bopp mën a dem di ñëw loolu nag Macky Sall mënuñu koo tere te bu soobee yàlla tey dinañ dugg Vélingara niñ fa war a duggee saafonteeg waa kon ñu ngi leen dalal seen xel dara daluñu di masawu xale yi nga xam ne ñi ngi jàkkaarloog alkaat yi ak ñi ci gaañu di dellu si di jaalewaat ki nga xam ne démb comme niñ ku ne comme Macky Sall di baaxoo rek doon nañ ko bal fële ci Kolda di wax ni loolu lépp dinañ ko topp nag fu mu fu topp di yem fii ak ci bitim réew ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum